na ca nee na man nag Sadio Mané li ma gënal te bëgg ko moo di ñu ànd dem ca Qatar moo tax ma woo ko blessure boobee nag ñoo ngi koy topp mu ngi faju demoon na ca Autriche waaye ba mu yeggee liñ ko xamal moo di sa tànk bi kenn du ko opéré loolu nag xibaar bu neex la blessure boobee nag file ak fukki fan dina ñu defaat yeneen test maanaam dina ko dinañu ko saytuwaat xool blessure boobee waaye balaa boobu yàlla na wér nee ñun nag ñoo ngi waajal bi te laata muy coppite ci équipe bi waaye Sadio Mané nag li ma bëgg moo di ñu ànd dem ca coupe du monde ba ndax bépp coach booy dem ci compétition boo sañoon ki mën ci sab équipe nga yóbbaale ko te ñun sax jot nañoo dund lu mel nii ndax ci coupe d'Afrique bii weesu Ismaïla Sarr ñépp dañu doon wax ne du dem ca coupe du monde ba wala bu demee du mën a football te Ismaïla demoon na ba ñu yeggee quart de finale football na kon li may ñaan bëgg ko moo di Sadio maane ñu amaat ko mu ñëw jàppale équipe nationale bu Sénégal kàddu yooyu Aliou Cissé moo ko xamle ñu jógee ci Aliou Cissé waaye Sadio maane duñu ko bàyyeegum dañuy dem ca ka koy tàggat di Nagelsmann ca Bayern de Munich

tey jii bi mu jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi di waajal match bi mu am suba Schalke 04 la ba Bayern de Munich di jàkkaarlool wax na ci blessure Sadio Mané bi journaliste ya nekk foofee laaj nañu ko ci mu ne Sadio maane de bu sañoon ànd ak équipe national bu Sénégal dem ca coupe di monde ba waa Sénégal it loolu la ñu bëgg waaye blessure bi ñoo ngi koy topp file ak fukki fan dina ñu def ay test su fekkee mën naa football coupe du monde ba dina jógee fii ci Bayern fekk équipe nationale bu Sénégal fekkee munut football du ñu ko bàyyi mu dem kàddu yi mu yëkkati nag méngoo na lool ak yi Aliou Cissé yëkkati kon nañu ñaanal Sadio Mané laata ñuy am fukki fan mu wér ba mën a ñëw ci équipe nationale bu Sénégal ngir jàppale leen ñu jugee ci équipe nationale bu Sénégal ak ñaancoo Sadio Mané dem ca équipe nationale bu Cameroun ñoom démb la ñu jugee ca Cameroun wutali Qatar yegg nañu fa ci jàmm waaye bu ñu yeggee ci le 18 nag dinañu amal match amical Panama la ñu war a jàkkaar lool ci fàttali waa Cameroun amoon nañ match amical ñoom ak Jamaïque waaye match boobee ndam demul ndam dikkul un la jeexee Cameroun nag waaj gi ñuy waajal mondial bi am na ca ñetti match amical amu ca ndam waaye bu ñu yeggee ci le 18 laata mondial bi di door dinañu amal match amical ñoom ak Panama jamono ji nag yegg nañu ca Qatar. ñu jugee ci équipe nationale bu Cameroun waaye doomu Cameroun yi duñ leen bàyyee gum kii mi ngi tudd Anguissa ma ngay football ca Napoli waa Napoli siiwal nañu ne xaatim na fa contrat bu bees tàq ba atum 2025 waaye contrat boobee nag. am na option ñaari at yoo xam ne bu ko neexee mu toftal ko ca wëyal foofee ca Napoli muy doomu Cameroun bii di Anguissa nekk milieu de terrain bu mën la muy def waa Napoli siiwal nañu ko ne yokk na contrat ba atum 2025 ñu jógee ci waa Napoli dem ca waa Espagne ñoom nag ki leen di tàggat di Luis Enrique siiwal na tey jii liste bi nga xam ne ñooy dem ca mondial ba liste boobee nag ñañu ca doon xaar daanaka ëpp doole gi ñëw nañu mën nañu ca lim Busquets Pedri Asensio Carvajal morota Koke ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom la lu coo wóolu woo leen waaye gisuñu ca nag Alejandro Balde nekk ca Barcelone gisuñu ca tamit Sergio Ramos nekk ca Paris ak David De Gea ñooñu ñëpp ñëwuñu waaye nag journaliste yi laaj nañu ko ci Busquets nee nañu ko Busquets mag la dafa jeexal mu ne Busquets de jeexalut te équipe national bii di Espagne gisuma ku fi mën Busquets kon Busquets mag mu am ñam la ndax système bi may football gisuma milieu de terrain bu ci gën Busquets Busquets nag li ma jàpp moo di coupe du monde bii sax bu jeexee beneen ñëw mën naa dem ànd ak équipe national bu Espagne Luis Enrique moo xamle kàddu yooyu. ñu ci équipe national bu Espagne dem ca waa yuufe ñoom nag seen ñaari gone yii tey ji bi ñuy entraîné entraînement collectif ba bokk nañu ca muy Vlahovic ak Federico Chiesa entraînement ba yépp nag